dal leen ak jàmm neexul gëm waaye dëgg la mariage bu rëy bi doxoon ci diggante ay dara di ab mannequin ak Babacar Gueye di ab footballeur mariage boobee tas na ñetti weer rek ginnaaw biñ ko takkee ñaar ñi ko sekkoon ku nekk dem na mu di ay dara ak Babacar Gueye bile mariage nag bokk ci mariage yi nga xamante ni ñoo gën a gàtt ci Sénégal ñu mën koo méngaleeg sax ak mariage u ancien directeur général bu compagnie Sénégal Air bi doxoon digganteem ak Fabien Fellio bi doxoon diggante maître El Hadj ak commercant bu mag bi di wuyoo ci turu Oulimata Dioum ay tamit ak beneen mariage bu gàtt lool ba mel ni tànkub xale bu doxoon ci diggante Mansour fay di mag ci Marème fay sàll waaye tamit di goro ci njiitu réew mi mag Macky sàll ak député bi di Aminata Gueye mariage nag bi doxoon ci diggante footballeur bi di Babacar Gueye ak ay dara di rakk ci Soxna ay dara di jabar ci Wally Seck juróon na fi coow lu rëy ginnaaw bi nga xamante ni benn xale bu jigéen buy wuyoo ci Marie Louise Diaw génne na ay audio teg ko kaw ay dara ca noonee sax ci la snappeur bii di Kocc Barma daal di defoon ay recherche am ay découverte yu horrible yu jëm ci ki nga xamante ni moo di jabaru Babacar Gueye yooyee découverte nag ak révélation yooyu taxoon ba famille footballeur bi mënuñu woon a supporter kii di ay dara ba tax ñu ni woon dinañ def seen kéemtulaay kattan ba tas mariage bi nga xamante ni dox na ci diggante seen doom ji ak ay dara waaye nag jamono ji mu mel ni moom famille Gueye seen mébét antu na ndax sëy ba tas na tasar nag li koy firndeel moo di daanaka kii di ay Aidara photo yi nga xamante ni publier woon na ko ci Instagram dem nekkoon ci ak jëkkëram jii di Babacar Gueye photo yooyu yëpp la ay dara daal di supprimer bépp trace boo xamante ni moo Babacar Gueye àndoon nañ ko ci réseaux sociaux yi moom ay dara daf ko daal di supprimer ba mu set wicc lan moo xew dëgg-dëgg nag lan moo waral ba bile sëy tas bile laaj nag waa Tactic TV dinañ leen ko toppal indi leen ci leeral fii ak heure yi nu jëm jërë ngeen jëf